ndax daf cee bind benn lettre boo xam ne yenn xaraf yi xaraf bi bu ko tombee bu stop duñ ko tomb ba lettre bi jeex moom kiimtaan gu ne def na ko xaddasa nett na <coughs> alxaaris ibnu xamaam xaaris doomu xamaam xaala mu ne xalaltu wàcc naa suuqeel ahwaaz barab bu ñuy wax suuqeel ahwaaz ab barab la rek laa wax de laa bi seen sol xullatal ahwaaz ko daay ak ñàkk rek laa wax de <clears throat> fa labistu ma sax fiyaa ci moom mu desen ab diir ukaabidu may jànkuwanteeg si deten ay tat tat wow sajji may màng ay <clears throat> yaaman ay fan muswaddatan yu ñuulal kukk maanaam fan yu naqale rek laa wax de ilaan raaytu ba ma gis tamaadiyel muqaami woyeg sax foofu min awaadi intiqaami bokk ci way jàggati waaw mbugal ma rek laa wax de <clears throat> demoon naa suuqee ahwaas fekk maa ngi ñàkk lool sax fay fan yoo xam ne maa ngi ànd ak jaa ngi jànkuwante ay jafe di dund fan fan yu metti rek laa wax de dem ba gis na nag continuer sax foofu waaw kooku mbugal mbugal la moo xam ni teguwul fenn faramaxtuwa ma jakoo maanaam ma xool ko bi aynul xaali yi ci bëtu aji bañ ci laa bañ dëkk boobu nag ba faaraxtuwa ma tax <coughs> ma tàqalikoog moom mu faaraxata talali comme tàqalikoo gént albaal yi bi aji ràpp <coughs> dégg ma bokk rek comme comme kuy bàyyi barab bu gént bu jeex fa zaantu ma daal di laxas xan wacaleha walis ndoxam mu néewam ma maanaam xiw wu néewu fa nekk kamisal isaari di aju wak sama sama sama sama tubay waaw raakidan di aji daw ilal miyaay jëm ci ndoxi alxisaari di aji bëri ma gaaw rek dem ci barab yi nga xam ne xiw bu bëri nekk na fa bàyyi barab boobu nga xam ne xiw bu bëri nekku fa hatta isa surtout ba ma doxee minaa ci moom man ala tey ni ñaari étape foo bantu ma sori sura laylatayni rañaan ak ñaari guddi ba ma doxee lu toll ni ñaari guddi daal tara at ci def feeñu lii ñeel ma xaymatun ab xayma madrubatun buñ samp mashbubatun buñ taal ma fekk gis xayma goo xam ne dañ ko samp la euh, dégg nga safara saa ngay tàkk nag ci biir fa qultu ma ne aati ma dana ma dikkee leen mooy xayma baak safara ga laa lii amaana ma an xaw dana ma mandil sa den ak mar mu aji métti aw ajiru wala dana ma am xala naari safara sa hudan aji jubal ma ma ne xaaral ma dem ci uh, barab boobu mën naa am dana saafara sama mar wi wala ma fekk si sa ak xayma ba ku ma mën a gindi teg ma si yoon wala man taaytu ba ma yeggee ilaa zil xaymati ci kër xayma ga raaytu laa gis ay xale ruuxatan yu rafet lool te yéeme wa shaaratan ak melokaan mar mu mar mu xatan bada bañ ja melokaan buñ ja mooy boo xam ni ñëpp ngi koy xool <coughs> ah wa cheikhan ak sëriñ xale yu nekk na ci kawam bisatun ak ak koddaay saniyatan bi aji yëkkati saniyatun bi aji yëkkatiku wala day nekk na fi moom faakaatun fii wi jënniyatun bi aji ñor ba ma demee nag gis naa fa ay yu yéemee rafet lool ak melokaan bu taaru lool ak mag moo xam ne ma nga sol yére bu rafet waaw ak fir yu neex yu ñor yu nekk ci kanamam fa hayeytu ma daal di ko nuyu nag su ma taxaa maytoo topp mu sori ko nag ba ma demee ci laa ko nuyu daal di ko sori tuuti arabe yi dañoo amoon kersa ñoom fa day ka mu daal di ree eh, jëm ci man wa axsana mu rafetal arab delloo alee ci man ci la daal di ree nag fay ma fay gu rafet fa wa qaala mu neen alaa tajlisu nax doo toog ilaa man jëm si ki nga xam ni taroq dana yéeme faakaatu firuweem ba wa tasuuq dana neex mu faakaatu mboosa mboosaranteeg moom ndax doo toog ci koo xam na ni firu yu rafet yu yéeme la yore waaye waxtaan wu neex la yore mu ne fa jara suma daal di toog nag xaalis ne ma toog lextinaami muxaadarati ngir màng waxtaanam wa dégg nga rek de laal iltihaami ma bi xadrati du caageen lekk la nekk ca péyam ba toogu ma nag pour dégg nga wan waaw ñamam wa waaye damaa toog pour waxtaan wa loolu rek tax ma toog xaalis ku bëggoon adab la fahina safara jamono ba mu ñaan adab yi ci ay xam-xamam wa kashara mu muuñ xan en ay yaa bi walis ay sellam maanaam ay bëñam araftu ci laa xam en noo ne moom abu zeydin abu zeyd la bi husni mulahi ànd ak waxtaanam yu neex ya wa qubi xalaxi ànd ak soon ak bëñam yu bañ bon ak bañ yu son ya xalawu mooy bañu zone yu tilim waa Abu Zayd mu ne bañu noonu la noonu la mel ba mu muñee daal ak waxtaan wu neex wa ci daa xam ne Abu Zayd la fa taaraf naa ñu xamante ñu xàmmeli ko wante yi ne isin jamono boobu <coughs> kenn ku nekk rek xamal sa bopp sa morom waa fan mu daal di wër bee ci man farxataani ñaari mbégte saata idin ci jamono boobu wala mu adri xaw ma bàyyihima ban ci mbégte yi ana man adfa laa gën a waaw adfa moo gën a law xaw ma daal ñaari mbégte yooyu ban moo si gën a bëri faraxan ci mbégte waaw faa moo gën a matal maraxan ci kontaante xaw ma daal ban laaj war gën a kontaan xaw bu gën a bëri rek laa wax de abi isfaar yi ndax feeñ gi mu feeñ min du junnati asfaar yi jugee ci lënd mi ay tukkeem am bi xis bi rehaali yi wala ci naataangeeg waaw laxasam waaw maanaam mbiram rek la ci namu baada im xaali yi gannaaw beekooram xaw ma ndax abu zeydin ñibbi ci gim ñib ci ci tukkeem yu euh, bëri yooyu loolu laay bég wala boo koomal gi mu koomal <coughs> gannaaw bu mu ñàkkee loolu laay bég wataaxat mu daal di namm nafsi sama bakkan ilaan afudda ci ma xotti xat ma ma dindi xat ma sirrihi waaw bitéeru waaw sekkerem ba maanaam la nëbbu sekkerem ba rek ma ma jëm koo dindi waa ab ma daal di biiru daa yettiyu sirrihi aji la waral eh, koomalam nga mu ne bëgg naa xam daal <coughs> lii waaw li waral abu zeydi koomal fa xultu ma wax la woon ñeel ko nee na iyaabu ka fan la sa jugee <coughs> woo ilaa ayna insiyaabu ka fan nga jëm foo jugee ak foo jëm boobu mam talaat ci nan la feesee iyaabu ka sa mbuus ah noo def ba sa mbuur fee mbuus fees noo def ba am xaala mu ne amal maqdamu bu dee jugee kaay ba la fa min tuusin maa ngi jugee tuus waa amal maqsadu bu dee jubluwaay ba fay la suus maa ngi jëm suus waa amal jiddatu waaye koom allati gi nga xam ne asabtuha jot na jot naa ko fa mel ni saalatin mu ngi leetar goo xam ne ixtadabtuha dagg naa ko maanaam sos naa ko fa saaltuhu ma laaj ko an yafrushani mu lalal ma dixlatu bi mbiram wa yasruda mu toppalante xale ci man risaalatoo leetaram ba maanaam mu màngal ma leetaram ba rek la bëgg wax jàngal ma ko fa qaala mu ne duuna maraamika xis na sa càkkutéef xar bul ba suusi xarek ba suus aw tasxaba nii wala lu may nga ànd ak man ila suusi jëm suus <coughs> li nga bëgg ma ma jàngale lettre ba du ma ko def mukk loolu daal xarek ba suus dekkil ko moo gën a yomb ma lay jàngal lettre boobu xalaa nga ànd ak man ñu dem ba suus boo defee loolu dinaa la jàngal lettre ba <coughs> ba suus jigéen la ju gaaf woon <coughs> dégg nga moo amoon na gërëm gërëmam googu nag moom la waaw kuréy bu daal di rey waaw ba ko bu reyee ba suus ñëw si jëstaas waaw fexe ba jasaas daal di rey kulaybu waaw zir salim rakki bu eh, dekkil guerre nag guerre bi tàkk ci diggante bakr ak taxlib waaw ñeen fukki at ñu ngay reyante léegi nag ñu tuddee guerre bu waxar bul basuus ndax jigéen jooju ko waral <coughs> mu ne dekkil guerre boobu moo gën a yomb ma jàngal lettre bi te te àndoog man basuus fa saabtu ma ànd moom ilayha jëm ci suuf xaxaran ci notel xaaris nii la bëgg woon xam-xam waa kaftuma daal di saxalee ci moom shahran weer weer wu ma sëkk maa ngeeg moom rek laa wax de woo moom yow lu nii may sungani sungani mu may naanal naanam ñaareel kaasaati taalili kaasi layya di lay rek way juri nii mu may xëcciloo ay na tatamili buumi yaakaar ya mu may yaakaar loo di ma layal rek xataa isa xarija ba mu xatee sadri sama dënd waxi la ñu not sabri sama muñ waa qultu wax naa loo ñeel ko innoo na li am ba am la yëpp xadisul làkk ñeel lay la sun benn lay amul benn sabab boo mën a boo mën a tegati sama kanam walaa lii ñel na fil muqaami sax ga taa tay la sun ak sungani amul loo may sungane sungani mooy lan lan la ngay naxee nit amul loo mën a naxee daal ba ma mën a des fii ba fii xaddin si suba asjaru danaa jàjje xuraabal bay baaxaan jaa moom taqalikoo la bu subaa rek ma daal di taqalikoog yow waaye xulu ma laxas an ka ci yow bi xufay xunee nin si ñaari daal xunee nin xunee nin du ñaari daal mi nattal lañ koy yoon dégg nga rek waaw fa qaala mu ne xaasa sell ni laay ñeel na yàlla abu zeyd ni ma jomm naa an uxlifaka ma lay faussé rendez-vous aw xaalifaka wala may wuteeg yow wutee dëhal gii wala ma bañ laa jàngal lettre bi du ma ko def gannaaw bu ma bu ma la andee fii wa ma an uhaddisa ma waxtaanal la illaa li ulabbisaka lu may ma sax loola ci bi damaa bëgg nga toog fi rek moo tax ma yéex laa <clears throat> nettali leetar ba wa iza kunta boo nekkee xarit sarabta da ngaa sikk benn dati sama dël waaxaraaka mu xiir la zannu suuy njortu lu ñaaw bi mu baax dati si na mu maa sori bu dee njortu lu ñaaw moo tax nga na mu maa sori daal di sikk sàkk ne du jàng leetar ba faasi xeralul maanaam jëngala su nopp li xisa si siirati ñeel histoire sama netali al mumtada ba damañ tàllali wala histoire sama mbir buñ tàllal maanaam déglul ma jàngal sama sira waas dégg nga loo def nii waa di nga tofal ko nga boole koog ilaa axbaaril fara ci xibaaru baada gannaaw tat tat léegi nag bu ma ko ba pare jàppal na am nga mbekte gannaaw boo amee jafe-jafe fa ma ko andil fa maa at wala ana la gëna guddu te yalla ka say boom wa wala lu gëna tidlu. yalla ka say pexé ak ya bari pexé wa bari ay boom manam ya mën eh, da nga bari dal loy naxé gaawal andi mbir mi mu leer boom gi ñi xëcé daaba loolu moy téye la lu mu ci ne mooy da ngaa rek de nah. fa qala mu eh, alam qamal anna dahra najmun na abusu baaji ñeek jamono ju nakare alqaani sànni na ma ilaa tuusin jëm tuus waanaa man yow may sin boobu faqiirun aji ñàkk laa waqiirun aji diis laa gann laa fatila déeta xoncitu tàndarma wala laa fatila déeta lalituwee lii di ma ñeel wala naqiira du caageen waaw <coughs> dégg lalit fatilu mooy lalit gi nekk ci kaw tàndarma gi ci ci ñaari xocc ñaari xari tàndama yi boo xaree tàndama ak leelit gi ci biir hmm. naqi ra mooy bu nekk ci kaw saal ba <clears throat> ñaari mu ne dara daal xam nga saalu tàndarma am na xoncit yi ci nekk du dara hmm. dégg nga boo xaree tàndarma gi diggante ñaari xarit ya hmm. am na xoncit goo cee daggee diggante ñaari xarit nag ba ci nekk mooy fatiin waaw ci kaw saal ba fa nekk mooy naqiir maanaam man xawma dara rek laa dara lum néew néew ñi ne fatiin mooy tilim tilim yi nekk ci diggante ñaari ba euh, dégg ñaari baaraam yi rek laa wax de <coughs> faal jaani mu wéet ma maanaam xam woon dara faal jaani mu wéet loo mu lor loo ma maanaam safarul yëdee nii soo ñaari loxo yi ilaa tatawuqi jëm ci ndomboxoo bi day ci bor maanaam ma daal di leb bor boo xam ne daal di ma wër na ma rek laa wax de fa dantu ma daal di leb li suwee li ittifaax yi ngir ñaaw ak dëppoo ga mi man ci nga xam ne woo moom asirul ku bon jikko la ñàkk sens gi tax na ma dëppoo ku bon jikko daal di ko leb <laughs> waaw wata ma yaakaar te sa yenn nifaaq yi jàppandik jarga fata wasaxtuma yaatal fi nifaaq ci dundale ma yaakaar ne sama mbir dana baax daal marché bi dana dox ba ma mën a fay moo tax lama la ma leboon yëpp financé naa ko fa ma afaqtu xiquma hatta bahazani lu may ne waaw diisal na ma waaw day nun bor goo xam ne lazima ni war na ma xaqu xaq ga te mooy fay ga xaqi bor daal mooy fay wala zamani mu taqoog man mustaxiqu aji yelloo ko ah si <coughs> sensi daal leb naa ba bor bi diisal ma ma war a fay nag waaw te borom mayun ma jàmm fa xetlu ma daal di gërëm fi amri ci sama mbir waat laxatu ma daal di feeñal xarimi kama lebal ala sama ñàkk ma daal di jaxasoo <coughs> wan ko ne ko mënaaw ma dara waaye fa lam yu saddiq dëggalut imlaaq yi sama ñàkk wala nasa nocceekuwut xan irhaq yi waaw ci tegg ci ci xatal ma maanaam bàyyi wut xatal gi may xatal bal li fi nekk jëdda dégg nga <clears throat> tatal na mm. fi taqaadi ci fayeku ga wala jëmu xóotal fi ixtiyaadi ci omman ma mm. ilal qaadi jëm caatekat ba mm. mu ne daal danaa ko fay wala mu yóbbu ma ci yoon rek wa kullama xadaatu saa yu ma toroxaloo torox looloo ñeel ko fil kalaami ci wax wastantal du ma sàkko wàcce minu ci moom rifqal kiraami ñeewanteeg way tedd war a xabtu ma xemam loo ko fi an yanzura <coughs> dégg ci mu xool lii ñeen ma bi mu yaase bi mu yaasaratin ci yombal aw yunzirani wala mu muñal ma ilaa maysaratin bas jamono koom ah xaala mu ne ma laa tatma bul yaakaar fi inzaari ci ma muñal la waxti jaanin nu daari ak lonku wurus bul yaakaar lonku ci man xaalis mm. maanaam bul yaakaar ne danaa bàyyi sama xaalis bi mm. saa yu ma ko waxee nag dama dimbale xaar ma ba ma xam wala mu def ma nànk ma ne bul yaakaar ne danaa la muñal mm. wala danga danaa fexe ba bàyyi la sama xaalis bi foo wàqiqa maa ngi gëñ sa xàq maa tara doo gis masaarikal xalaasi dégg nga yoonu mucc aw tur yéen yi nga wan ma sabaayikal xilaas yi waaw ruyiliti waaw wurus ya wurus yu sell ya ah balaa ngaa mucc ci man daal foo nga delloo ma sama wurus rek de vraiment mm-hmm. raaytu bu ma gisee ixtidaada ladadihi tatakkutantum ka mm-hmm. maanaam tatakkuloom ka mm-hmm. wa an laa manaasana déet déet benn rëccuwaay lii ñeel ma mi ngi di ci loxom mënuma daw daal ba rëcc ci loxom saaxabtuhu ci laa xuloog moom su ma waasabtuhu topp ma xeex ak moom li raafian yi ngir mu yëkkati ma ilaa waalil jaraay mi jëm ci ki nga xam ni <coughs> mooy atte musiba ya laa ilal xaakimi waaye bu mu yóbbu ci ñekk kay atte fil mazalimi ci tooñaange alal ya ah mu ne na ba ma demee ba xam ne nii kii daal foo mu yóbbu ma ci yoon ci laa xulóog moom rek daal di xeex ak moom pour def musiba bu ma xeex ak moom nag ci ki may yóbbu mooy ki nga xam ne mooy atte atte criminel yi tooñ yi waaye du ma yóbbu ci ki nga xam ne mooy atte wàllu alal lu tax loolu nag mu ne li maa kaana ngir la nekk bala xani jot na ma min if daalil waa waali waaw ci teral ak waaw kilifa ga wa fadli yaa nga neelam wa tasaddudul qaadi ak tatak attekat ba wa buux lii ak gis naa ne ki nga xam ne nii mooy atte tooñ yi kooku ku mën a tëral nit la ko am ku am ngëneel la ku mën a joxe la daal waaye kay atte a wàllu alal moom kooku mbiram dafa jafe mu nay moo tax bëgguma mu yóbbu ma fa ma def beneen tooñaange pour mu yóbbu ma fa leen fala ma xadar naa bañ teewalee baaba amiri tuusa bunta buuru tuus aana su ci laa yëg an laa baasa ne déet ak xaay wala buusa déet ak wàncu maanaam déet ak lor ba ma demee ba ci bunta buuru tuus ba ci xam ne fii daal musiba nekkut fa mm-hmm. fa sa daay tuma daal di xoo maanaam ma huut rek mm-hmm. dégg nga ma sàkku ak pot ak daa ma bay daa ak kayit gaa weex mm-hmm. waan satu sos risaala nag leetar raqataa buy tipp tipp tampon mooy boo xam ni <coughs> dafa am tomb yu ñuul ak yu weex maanaam yenn baat yi dañ koo tomb baat bu beneen baat bi tombuñ ko mhm. xoolal xaraf bu nekk rek noonu lay mel maanaam euh, baat bu nekk rek yii dañuy tomb xaraf yi yii duñ ko tomb mhm. waaye moom mooy axlaaqu sayidina gis nga alif gi ko xaa gi tomb nañ ko laa gi tombuñ ko xaaf gi tomb nañ ko sa seen gi tombuñ ko yaa gi tomb nañ ko daa gi tombuñ ko nun gi tomb nañ ko noonu lay defee am jeex rek de ku yéeme ngi nii borom xam-xam dëgg la axlaaqu sayidina suñu jikkoy sang gi taxabu danañ ko bëgg ba bi xaqawati ci ëttam ba yolob bu la ñuy sax suñ sang wi daal jikko ju baax la bëgg ñu ñu bëgg teraanga yëpp ci ëttam la ñuy sax wa qurbuhu jege ko mm. tuxafun ay may la boo ko jegee rek xam ay kado wana yu sori ko nag téléphone ak sànq la mm. ku bëgg sànq rek sori sang bi attikër bi lay tagg nag waxul la too xaritoog moom nasabun askan la boo xaritoog moom dafa mel ne yaa ngi sa askan mm. waqatiyaatoo dog ko nag nasabun ko dogee nag waaw dëkk ci coono rek laa wax de waxar bu ñëw kaam zaliqun aji ñëw la <clears throat> dégg nga ñëw kaam moom dafa ñëw lool wa su wa dégg nga wa suubuhu ay biddiwam maanaam ay jalooreem taliqu dana melkati ay jikkoom daal ak ay jikkoom jëfam yu baax dafay melkati ñëpp ko gis rek laa wax de waaw <clears throat> wa salfu ak fegoom zaana taaral na ko fegu gim fegu ba du topp bànneexu bakkanam mm. moo ko taaral wa qawimu nahjihi yoonam wujub wa baana leer na sang la boo xam ne nii boo ko xoolee rek xam ne yoonam yoonam wu jub la wasinoo xelam ma xel ba jàllar bi la mbir yi wa jara ba natt na mbir xel mu ñaw la yoree boo xam ne mbir yëpp la tourné wëlbati ko ba xam ba xam bii rek biteem mm. wanaatoo meloom sarraqa dugg na penku waxara ba dugg na soow meloom nag ñëpp xam nañ ko wa penku xam nañ sama sang bi waa waa soow xam nañ ko dem rek commencé tagaate kat ba mu ngay way nag ne sayyidun sang la boo xam ne mm. kulla dégg nga sabuqun sangu bi aji jiitu waakoon la mu birun ku not la ci mbaax moom sangu boobu fatin aji am xel la waaw muxribun aji andi lu tumuranke la azufun waaw aji jomm lu ñaaw la ayufun aji siblu bon la sama sangu bi noonu la mel mu ne àttekat bi daa sang la boo xam ne nii wëlbati na mburi mbiri góos duraat xam ne lépp rek laa wax de ku jiitu ñëpp la ku not la ci mbaax borom xel la ku mën a andi lu la ku jomm lu bon la waaye ku sib lu suufe la muxlifun waaw <clears throat> aji wuutalal ku ñàkk la mutlifun aji sànkaalalam la la axaru ku jébbi la ku jébbu la jébbu nag mooy li mu ci nam sang fasu weex jëy weex kooku la wax ku jébbu waaye nag fii li mu ci nam mooy sang ku tedd rek de faridun ku wéet la amul morom naabihun aji yëkkati ku daraja la faadilun aji am nga neen la zakkinu aji sell la waa anuufun waa aji jomm lu ñaaw la <clears throat> Mm-hmm. dégg nga bañkat la daal mu ne sang la boo xam ne ku ñàkk dara mu wutalal la ko lu mu xam daal di ko joxe waaw ku rafet la waaw ku wéet la borom dara ju yëkkatigu la ko am ngëneel la ku sell la waaw bañkat la mufliqun aji andi lu yéeme la in abaana waaw ndem leeral na mm-hmm. tabbun aji xam la mbir ya isa naa ba ndem xew na a ak wajal la mu màgg xatun am ba mu muy musiba mm. ma xoofun bu ñu ragal sama sang la boo la boo xam ne nii waaw ku ku mën a andi lu yéeme la mm. <laughs> dégg nga su leeralee rek wala mu wax rek wax wax ju yéeme rek waaye bu xeex jote wala mbir mu màgg ñëw mm-hmm. moom xam na mbir ma nuñ koy réglé waaw ba génn ci rek laa wax de manaazimu sharafi mm-hmm. ay nosey waaw teraangaam mm. maanaam meloy teraangaam ta talifu dana dëppoo ay teraanga am mel yëpp dëppoo wasu buubu xibaa ii dégg jañu mayam waaw yëkkifu dana dotteeku mayam yu mayam yu mel ni niir wuy jañu day dotteeku saa su nekk waaw wa naa ilu yedey yi ñaari loxom faada bëbb na maanaam toujours rek ñaari loxo yi day joxe hmm. wasu xalbi waaw nayeg xolom raada ngis na mm-hmm. bu xol bi nay gi nay ndox la mu mm-hmm. nekk ci xol nga ne ngis na ci xol ba moom nay nekku ci moom mm-hmm. waxil fu saxaay battak waaw tabeem yoxtara bu danañ ko ratt bu doon tabeem gi batt la nga ne ñëpp a ngi cee ratt wasan bu iyaabihi wurusu euh, walisam yoxtara bu danañ ko euh, danañ ko rekki wurus ku nekk ci wurusam ni ñaa ngi koy jël day joxe rek la la bëgg wax man la fa ku tàppewu la tuufu na waxala ba tam not ku eh, bokk ci mbooloom rek daal di gañe daal di not ñëpp wa taajiru baabihi commerçant wu buntam ba waaw jalaba bijj na teranga waxala ba tam dog teranga rek jéngal ko ci boppam képp kuy commerce ba ñëw ci buntam ba danga nga am teranga xëcc ko sa bopp ka fa fegu na an hat mi bari yin ci tooñ aji set wa bëri at dañ na min dana ci tirim min dana si xaw yin ci tirimu aji bew sëriñ la boo xam ne ni waaw du tooñ mukk ku set ku mucc waaw <coughs> amut mukk waaw tilima ku bew mm. wa qarana lënkal na layaanoo nooyam mm. bi isim ci dëgër nooy gën a dafa ànd ak dëgër mm. waaw wana këba waaw sori na an maza bi kësin ci yoonu aji nay dafa jàdd wala si ku nay nakaba mooy jàdd na rek de lay se ne ku bi wasaabin di tabaakoonu xenda nuusa di charin ci occasion xay mm. am na ñoo xam ne bu yamee ne am occasion pour def xay rek mm. gaaw def musiba gu bëree bëri mm. waaye moom bu amee occasion bu mu defee musiba dafay jégali du def musiba ba li fi nekk yaa in fu day lu ñaaw du def lu bon bu jekkoo daal day baale gi nga nu ko taggee mu ne fay daal yi moo tax yoo xabbu danañ ko bëgg wa yastaxaqu a yeeyoo afaafu ak fegoom saxafan ngir sopp bi ci moom fulu baaboo lu sellam la maanaam fegoon gu sell ga xalaabun mm. aji war war xol yi la mm. lii ma waral ñëpp bëgg ko mm. waaw ak fegoom it ku nekk bëgg naa am fego gu mel noonu jikkoom ju tedd jooj daal ak fegoom googu tax na xol yëpp jeng jëm ci moom ndax waaw xëcc na leen axlaaqu ay jikkoom xurrun jikko yu weex tàll la waaw tarifun jikko yu aji melxati la wa fuuquhu fuuqoom fuuqun fuux goo xam ne isa naadaltoo boo feetlanteeg moom hmm. xallaabun aji waraa kon la foo xam foo mooy bën bën gi nga xam ne nii waaw moo nekk ci bopp hmm. waaw fett ga fa la ñuy def xocc xocc ga ñi waaw jamee rek la wax de hmm. mu ne foo xam googu maanaam fettam gi rek la bëggoon ne booy fettanteeg moom mu not la képp kuy jonganteeg sama sama sang bi sama sang bi not la rek laa wax de su juxun ay jikko la yore waaw yu nooy mm-hmm. yaxisu dana kontaan mm-hmm. wazu talaafin borom ak dabaatal la mm-hmm. in hafaanem fakasal na xillun xarit falay sa ne ku di taabu ñuy sikk baaxi ci àqam jikka ju nooy la yore foo ko fekk dafay bëgg bu nit ñi di ñëw lu nit ñàkk rek mu dabaatal ko bu xarit xarit xaritam fakkasaloo ba ñàkk dara mu wutalal ko ko waaw bu dee jikko la mu mu fexe ba jikko jooju delluwaat ci moom kenn du sikk ci àqam waa ñëpp xam nañ ne borom àq ju kawe laa baaxilun la nekkul aji nay bal li fi nekk baasilun aji joxe la xirqun ku tabe la idaa yoon taru buñ koy xaaraan bartun aji feeñ la laa yeli du ko méng baamun buntu nayut dafa dafay joxe tabe lool boo ko dikkalee doo fekk néegam am bunt maanaam amul garde corps booy dikk dugg te boo duggee mu faj soxla in àddane màtt na aslun beekoor fal la mu dam wax arbaida di ñëw kaay màttam bu beekoor dikkee mu fexe ba nit ñëpp nekk ci jàmm duñ jëg métitu bekkoor ba bi manaa bi ci taxawaayam ba fanaxatta mu daal di sippeeku minu ci moom waaw wala boog fanaxatta mu daal di xolleeku minu ci moom naa bu ak ak sell bu ba ñëwee rek waaw <clears throat> dafay mel ni ba bu ñëwee mel ni sell guy matt dafay mel ni dafa dindi ba ñëw waaw matt gi du saf maanaam dafay fexe taxawu nit ñi waaw ba duñ yëg waaw métti métti musiba rek laa wax de waja diirul aji yeewala bi man la ba ci ko am xel wa fatana mu ñaw wa xaruba mu jege wa satana wala mu sori an azana mu toroxlu li xarini zamanin ñeel sangab jamono <clears throat> wa jaabiri zaminin aji jàng aji lompañ zaminin boobu mim gi dañ koy kasra mu ne ko am xel moo xam jege nga am sori nga war ngaa seet ki nga xam ne mooy sang ak jamono nga toroxlul ko ki nga xam ne mooy jàng waaw <clears throat> lompañ nga nga toroxlul ko koo xam ni mu dara dina ba mu nampee c'est-à-dire li soom yaayam xusa jagleel nañ ko bii faadati taxtaani waaw ci dooteeku mayam rek laa wax de sang la boo xam ne nii ba muy namp rek waaw ci la am tabe maanaam tabe daal da koo nampaale naasa yëkkati na dimbale wa faraja tam dindi seen njàqare mu yëral seen njàqare wa daa fara mu dimbalanteeg nit ñi fa abhaja mu kontaan loo leen mm. wa naa fara mu foñanteeg ñeneen fa asaja mu xatal leen mm. ñam daw moom nekk nañ ci xat ñoom yi pugar waan toog di xuloog ñoom ñoo mooy naa fara mm. dégg nga ñooñu xat nañ wa faa del bi àqin ci àq goo xam ne ab laja waaw feeñ na rek laa wax de mm-hmm. attends ba soral na man see lii ka ñëw gannaawam mm-hmm. eh, eh, dell na ci loo xam ne ni xàq goo xam ne mm-hmm. ñëpp xam nañ ne xàq gu kawe la képp ku ñëw gannaawam bëgg koo rey da nga sonn ndax fa mu yeggoon neexuta yegg wa xurisa tagg nañ ko isa xusa nem gësam nañ ko wa bulie tañ natt ko bis boo ko nattoo rek xam ne jàmbaar la si nga koy gën a tagg wa tawajja leeral na sifaat yi ay wa tawajja taaral na sifaat yi ay meloom wala wala tawajja ndëppal na mooy solal na ko mbaxanaam buur sifaat yi ay meloom bi bi xufaat yi ci bëgg ay xaar ay xaarankatam mm-hmm. li gën a rafetal meloom daal mooy bëgg dafa bëgg ñu koy xaaraan mm-hmm. ñu bëri bëgguñ ku leen ku leen di mm-hmm. waaye moom boo ko xaaraanee rek ci la gën a bëgg daf jox waa ku koy ñaan daal la yaakamti falaa xalaa yàlla bu mu dañ za bahjatin di borom ak yam tadu dana tàllalu zillu xis kër ak naataangeem mhm. yàlla bu mu dañ ci boromi taar nga xam ne naataangeem dafay mel ni kër goo xam ne day tallu rek fay noonu ak moom barun aji baax la bi man sa si képp koo xam ne wéttaliku na daw show bi mhm. leer ak ay jalooreem ay biddiwam mhm. képp koo xam xam nga ne li mu xam yàllaa koo may nga nangul la ko nga nangul ko ko kooku dana la defal mbaax zaana taaru na mazaya fi ay ngeneelu zarfi ay ngeneelu teddaangeem ndollal yi ko yàlla defal mu bokk ci teraangaam lu taaru lu ko taaral bilib si xaw fi rabbihi sa sol yi ragal boromam ragal gi ragal yàlla nag moo tax ay nga mi gën a taalu fa yeex ni na ndokku <coughs> Seydina suñ sang fawzoo texem bi ma faaqili ci ay ngeneel yoo xam ne te asalat cosaanu na kon nag suñ sang bii xam gi ma am ngeneel yu am cosaan nañ ko ci ndokkeel wa jëllan màgg na moom ngeneel yooyu wa fawtu ak raw gim gañe gim raw raw bi sana ci ay njekk yoo xam ne te mat mat na wanam matam te saaroo rek la wax de am na njekk yoo xam ne nii raw na ci ay masam waaw njekk yoo xam ne njekk yi mat la te saaroo wayu laa mu dina dëppoo na mu ngi ñëw ci moom qurba hadrati yi jegee péem bi xaw su raqi riqihi waaw xetli jaamam a péem bu sell bi mu nekkee nag lam dëppoo rek mooy jaam bu ñëw di xetli ko ci moom mu xetli ko bi xadin ci cër min xuswati ci ay cëram waaw cër yam yore mooy cëri cëri yëpp ku ko jege ku ko jege rek dana am cër bu mu la jox man nag maa ngi jaam boo xam ne li laa ñëw naa ci péem te yow la dëppoog sa pée yow sang bi mooy dimbale rek sa jaam xeetali ko jox ko ci lenn si sa cëri mbaax yi fay noon aka jaam boobu tali du nat bin ku baax la wa shari du jët bin kuñ dàq la ngi teg beekoor wa jëri xnuwo bin kuñ jam la ngi teg ay musiba yoo xam ne asarat def nañ jeexit ci moom wa naasimu xalaayida ay ragg ay aji aji <coughs> aji nose way yu te sa yoo xam ne tasaaroo nañ isa jaase nem fuur na mm. maanaam bu jugee li xutba te ngir xutba mm. falaa yu jëru duñ fekk foofu xaayaloon kenn nag ak aji wax de mm. moom kay wax ndax fasaa su ma xusun topp xusu li muy fasaa fasaa sama foofu baaqiluñ comme baaqi la baaqi la xusu yaakaar naa yàgg nañoo nekk di seen mbir mu ne kuy xetlu nii doomi ku tedd la waaw beekoo tax na mu waaw mënu sax benn place waaw ay musiba ay jamono ñoo ko jam waaw ba jam-jam yi def jeexit ci dundam waaw waaye nag ku mën a woy la waaye mi tasaaroo na ci àddina bu jugee pour xutba waaw kenn dootul waxati xusu lu muy fasa fasa dootul fasaati fen xabarat waaw ndem waaw ndem taaralna maanaam fa in xabbaran dem taaral na maanaam bu sosee way wax xulta nga ne xibarun ñamam nëng la bu defaree rek bu sosee ak wax rek nga ne kii dafa dafa dafa jël defar yére gu seer waa loolu mooy xibaar num ni mat boo xam ne rafetal nañ ko def ci ay rëdd waxilta nga njort nga jort way wa wala boog wax ja riyaadal muy toolu dër goo xam ne xan na man màgg na su wayee nga ne yére boobu ñu def ay ay tomb rafetal ko moom mooy way wa noonu lay wax ja rafetee wala daa nga ne toolu dër la goo xam ne nii màgg na noonu lay waxam di rafetee hada lii suma shirbu topp ak naanam nag bardun kont kont la li muy mën a way way way ak lu muy tedd tedd moom jaam bi la dikkal waa xamul dara bu doon naan eh, ndox la xam nga ne ndox ma xont la waqootu dundam nag xar dun leb la li muy dund yëpp daf koy leb dégg nga wa faraqahu ak subaam xasaqun guddi la maanaam bëccëgam mooy guddi maanaam du jug ci naqar mukk wa jilbaabuhu ak mantoom xalaqun lu rampura wa xat xaliqa jàq na nag li tawaxuri xari li tawaxuri xarimin ngir mel ak aji aji leble xaasimin waaw <coughs> bi aji tooñ yastaxisu mu ngi koy soññ bi àqin ci àq laazimin gi aji war li tax nag ki la jaam dikkal dafa tiit li tax mu tiit ndaxam na ku ko lebal bor mere ko lool mën a tooñ lool topp ko rek nangu na ko fay dile xamut waa te moom war naa fay waaw kon we duut bor ba man na bu xewalee sayyiduna suñ sang bi ka fii ci tënkam bi ka fii ci fekk ko bi xibaati ka fii ci may ak tënkam mm-hmm. te wasaa kon dana rango maanaam dana rango mooy nga jël dara laxasoo ko rek bi ma ci teraanga faaqa goo xam ne kawe na ñëpp rek laa wax de wa baa dellu bi ajrin bi ajri fakki ci yoonu xob bi ma min wasaaqin ci xeew ak euh, <coughs> ci xeew buum rek laa wax de dégg mu ne suñ sang bi bu ma xewalee teel ma waa ji ne moo ma lebal hmm. may ma dana am teraanga goo xam ne kawe na ñëpp waaw dana dellu it ci yoolu dana dana amit yoolu ku ma dindi ci xew gën ma xewoon mooy bor ba la laa wax de mm. la xalaat yàlla bu mu dañ sa jaayaa xulqi bind rey jikkoom ya yi nga xam ne yàllaa ko ko bindee mm. tarfidu di may caay ma barki yaa ji seentu mel a xam képp ku ñëw di ko yaakaar rek yàlla am lu la may mm. bi man ne nag bin ci xewlu borom azaliin gi ko jug cooy mooy bu amul fu mu commencé xayin ki aji dund abadiin gi ko jug foofu amul mu yem ah lii la wax nag xaala mu ne fa la mastasafa ba mu kéenoo hmm. maanaam ba mu gisee alamiru buur bi la aliha baatam yu rafet ba mel ni wurusu du loolu wala ma mu melxati <clears throat> maanaam mu gis asirra mbóot al moo daa buñ dénk fiyaa ci moom mu xam nag li waa ji bëgg mooy mu dimbale ko hmm. fayal ko borom ba aw ansa ci la digle ci fil xaali sa sensé bi xadaay day nii ci fay sama bor wa fasala mu teqale bayna xas mi diggante aji xuloog man wa bayni ak sama diggante mu teqale sama diggante kii xuloog man nii su ma saxla seeni topp mu jagoo ma li mu kaasarati yi ngir dugal ma ci mbooloom ma maanaam pour yokk mbooloom ma rek de mu ne léegi naa fa toog buuri moom itooni bii rek lañ xam ñoom ñoom ku gis rek ne faatooni bii andi leen ma ko lu baax lu ne ñoo ko yelloo waaw faatooni bii loolu mooy mbiru buur mm-hmm. waxta sani mu jagaloo ma mu jagoo dégg nga rek laa wax de mu jagleel ma kon bi asarat yi ci ngëneelam fa labistu ma sax bi daa si ne lii ay at xam na fa labistu ma sax bi daa si ne na lii mu ay ay at anaa mu di xewlu fi diyaafati ci ngan ci nganaleem waar tamu may sàmm fii rii fii rafatihi waaw ci naataangeeg ñeewanteem rek la waaw hatta isa xamara nii ba ma muuree ma waa xibu ay mayem <coughs> wa ataala mu guddal zayli sama mbicci sama geen waaw zahabu ay wurusam maanaam tax daal ma koom gu yaatu rek dégg nga tala taftu ci laa ñeewantiku ci laa naxante fili te xaali ci laxas ala ma tara nag li nga gis min usni xaali ci rafet ak mbir ci laa naxanteeg moom nag ba dem waaye nag xam koom gii nga gis xaala ma ne ko fa xultu ma wax la wa ko sukran maa ngi sant li man ñeel bi nga xam ne dogal na la lakka ñeel la luqiyaana samhi daje ku tabe alkarimi gaa ji tedd waan xasa mu xettali la bii ci moom min duxdat min duxtatil garimi waaw ci tatak aji fayeku borja wala min daxtatil garimi ci najak aji fayeku borga daxta mooy naj duxta mooy jafe-jafe mooy tattal rek fa qaala mu ne alhamdulilahi ngi sant yàlla ala saadatil jaddi ci texe saas ga wal xulus ak mucc mais xas mi ci xuloo xat ba aladi gaa ji laa wax de mu daal di sant yàlla ci mucc gi mucc ci kum loon xuloo su ma xaala topp moom abu zeydu ne ayuma ban si ñoom ñaar ahabu moo gën a sopp ilay ka jëm ci yow an oxsiyaka ma may la <clears throat> mi ne may ga am utxifaka wala ma waa jox kado bi risaale si ca leetar ba araqta ba aji am tomb ba aji tipp tamp ma jox la may gi may la ci alal ji wala ma jox la leetar bi bu la ci gënal mm. xaalis moom ku bëgg adab la fu xultu ma ne ko im laaw risaalati fi la leetar ba mm. aha bu moo gën a sopp idée jëm ci man mm. nga wax ma leetar bi ma bind ko rek yóbbaale ko moo ma gënal fa qaal abou zeyd ne wax wa loolu waa xiqa maa ngi gën ci àq moo gën a woyof alayya ci man a ma nit dama jox la bi moom moo moo ma gën a yomb fay na neex la sa maa yeliju naka may la may ma loo xam ne dana dugg fi azaani a yomb min nexlati maa yaxruju ci may go may ak loo xam ne dana génn mi ne ardaani ci poos yi mbubb yi mm-hmm. may la daal lu dugg sa nopp bi moom a dana génne sama poos may la waaye su ma ka andoo def mel ni moom abou seydi fa jomblu na loolu mm-hmm. ah wastaxyaa mu rus nag fa jamaa mu boole lii ñeel ma bayna risaalati diggante leetar ba ak may ga mu daal di ma mujj may nag jox ma jox ma leetar ba boole ñaar yëpp mm-hmm. ndax rus na maa jox benn ah, fii lañ gisee abou seydi maye ma fustuma daal di texamilu ci moom bi sax may ni si ñaari fet waaw mooy am naa leetar ba may na ma wa fasaltu ma tàqali ko anu ci moom bi xun may ci ñaari koom wa mooy leetar ba may ga woobtu ma dellu ilaa watani jëm sama réew xari ay ni daa ji sedd xol bët mooy bët yi bët yi sedd mooy bët yoo xam ne dafay jooy jooy mbégte ndax jooy ronk ñu mbégte day sedd ronk ñu naqar dafay tàng lu tax nag mu sedd xol bi maa xustu ci la ma làq mi ne risalati ci leetar ba wala yi ne ak kaña nga kaña mooy wurus ak xaalis xam naa leetar am wurus ak xaalis rek laa wax de in uridu lislam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh